jërëjëf boobu de moo gën a matale yëpp waaw macha allah moo gën a matale maa ngi koy may musubaay min ashaytaan rajim bismillahi rahmani rahim waskuru llaha fi ayyamin maadudat faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman taa فقر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تغشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدنيا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 إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في سلل من القمام والملائكة وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم البينة ولم يبدل نعمة الله من بعد ما جاء ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته بينه فإن الله شديد فإن الله شديد العقاب حسبك صدق الله العظيم صدق الله العظيم جرجف صحنا سكاي تري من neex الله ما شاء الله كان nga ko كوكو ماي ما maa ngi كيف may képp sant Diop yalla yalla yegle sa alawoo yalla ibi sa xel lol ta defal ko wa daara ji yëpp ñu wo benen ndongo bi ci topp te mooy alxaaji babu ndaw alxaaji babu ndaw doomu bay muntaha ndaw ak ramatulaay ndaw mo ñu wara jangal iqtaraba lin nas hisabuhum bismillah a'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب استمعوا إلا استمعوا وهم يلعبون لاعية قلوبهم وأذر النجوى الذين ظلموا ولا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم يفترون قل رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فلياتنا بآية كما الأصيل الأولون حصبك صدق الله العزيز جري جف آه، سرين الحاج بابو نو تاري من يحن الله رواية ورش بيرن الله مخارج الحروف جل صفاتي يبقننا ما شاء الله أن يالا يجلس على ويوتم يالا دفع الله بركة دفع الكوا دار الجيب يا ستور ستاري ميكان بكو ماي ما كامل كيف كسان رواتنا أزازيد del dëgg may képp ku sant si ak rawatina Oustaz. jërëjëf kon nee na may na ko ay Oustazam ci biige wilaan doomu bay alxaaji taala wilaan ak yaa xadi Cissé mu war ñu taril suratul baqara ci aayab mathaluhum ka mathali alladi stawqada naaran falamma adaat ma xawlahu bismillah auzu billahi min alshaytani rajim مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله سهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم غيب من السماء فيه سلمات ورعز وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آسانهم من السوائق عسر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يعطف أبصارهم كلما دعت لهم مسوا فيه وإذا أسلم عليهم قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبذارهم kulli shay'in qadir soxna Bigué tari mi neex na lool am na solo kan nga ko may ya jërëjëf soxna Bigué jërëjëf maa lay sant di la gërëm nee man la ko may jërëjëf naa la bàttale ba nga xam ne bàttale ñu jàll ci beneen ndonga alxaaji Mor Diop doomu baay Babou Diop ak yaa xaram luum moo ñu war a jàngal laa yuhibbu llahu aljahra bissuui min alqawli illa man zulim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا غيرا أو تخفوه أو تعفوا أنسوه أو تعفوا أنسوه فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ ويريدون أن تتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا معينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد بين من أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد ذلوا فقالوا أرنا الله فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتيناهم ذلك ورفعنا فوقهم التور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم في السبت وأخذنا منهم ميثاقا قليلا صدق الله العظيم تكبير الله أكبر تكبير تكبير ما شاء الله ما شاء الله wérna yal na yàlla yeggale sa alawa yeggale mboolem ndongo yi jànge si balaa déwén yal na fi lu ëpp ñaar fukki kan mokkale incha allah. jërëjëf sa tarimi kan nga ko may. Oustaz Sidi. Oustaz Sidi jërëjëf Oustaz Sidi. sëñ Alhaji Mor nee na yow la may tarimi kon ñu fàttali mbokk yi rek xale yii di ñëw di tari photo bi ngeen gis ñu def ci seen yére bi ci kanam mooy Oustaz bi fi nekkoon daaw nekkoon fekk Oustaz Sidi mii di jàngale yàlla def ren. fekke woon na ko yàlla def ren fekkul ko fi mu ngi ko fekke barsak mboolem ñaan yi ñu ko ñaanal yàlla na ko fekke barsaq nga xam ne dañ koy rendre hommage ci bis bi tax ñu jël mbubu xale yi def ko ci ba commencé ñaanal nañ ko sii di ma démb jàngal nañ ko fi kaamel kon macha allah daara ji delloo na ko njukkal bu baax a baax waaye lu ko ji delloo njukkal rek doyul ndax ku amoon yitte la ci alquran waaye ko amoon yitte la ci dëkk bi bu baax a baax a baax a baax waaw Moustapha Diop mu may wax na ma bindal nañ ko benn xasida du ñàkk ne mën na am dañ ko jàllale ci jataay bi insha allahu rabbi ndongo bee ngeen gis mu toog ci kaw sees ba nele mën nañu wax waa daara ji yëpp ñoom moom bis bi waaye moom mais moom moom bis bi dëgg dëgg nag ndax moom lañ doon wax ci commence baabe ne moom moo tari alxuraan ci daara ji ren ngeen ñaan mu bari rakk lool déwén incha allah ñu ngi ne defal ko ab sées mu toog jàkkaarloog ay moroomam te bu ëllëg yowmal xiyaamee lay gën a neex sées bañ koy tegal mooy gën a njool biñ ko tegal kaala gee mu teg ci boppam bi bu ëllëg yowmal xiyaamee mbaxanam kippee buñ koy tegal ci kaw boppam bi mooy gën a gudd bii nii mu teg ci kaw boppam bi kon mbokk yi góor góorgóorlu ci alquran bu baax a baax lu ci waay góorlu rek na ko xeeb ndax alquran mooy ni ñu toll كيف كو خامنني فخ منو موكل القران يالا نينا فقراو ما تيسر من القران يا جولي بي فخال با خام دارا القران رواتي نغا فخ با خام لو جولي لول فراتا لا تي جولي بو مارادون بو مونتو موكل القران فخال با ياب القران واي بو كو ياب فخال با بوكو سي ني نات ناتي دي جان القران ndax kuy jang di nat nati ko yunus sallallahu alaihi wasallam neena ko ñaari fay lay am ëlëk yowal xiyam ñaari fay yimi am moy lan day am tiyaaboog jàng gi ak tiyaaboog góorgóorlu gi muy góorgóorlu di nat nat kon nañ góorgóorlu bu baax ci téere bi a ah Moussa lépp liñ ko ñaanal yal na ko fekk fa mu ne bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ñu jàll ci xale yi ku ci topp mooy Serigne Cherif Cherif Ndiaye Cherif Ndiaye doomu Baye Dame Ndiaye ak Yaay Ndiaba Cissé mooy jàng moo ñuy jàngal suratul Al Imran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل وأنبئكم بخير من صالح للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنوار من تأتي الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب حسبك صدق الله العظيم جرجف صرف جاي Euh, sa tari mu neex mii am koo ko may. saa si saa si di macha allah jërëjëf. comme moroom Salif Ndiaye moroom tariqul aw nabbiukum bi xayri min dalikum ñu jàll ci beneen ndongo Alxaaji Ndiaye doomu baay Daam Ndiaye ak Yaahamin Sañan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 الغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من فضلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادرون الله والذين آمنوا فما Sadaqallahul azim. Jërëjëf masha ya Allah yal na yàlla barkeel yàlla ya ya sa àll waju insha Allah def la bala nga balaa déwén heure bi nga tari yow ak sa mbokk yi nga tollal ci daara ji yëpp ak ñi nga raw lan ngay ñaanal ustaas bi la jàngal gudd fan yàgg gudd fan ak wér yaram lan ngay ñaan ñaanal borom daara ji sa yaram gudd ñu yàgg fi loolu te jërëjëf kon mën ngaa dellu si place mu jàll ci beneen ndongo incha allah ndongo biñ ci teg mooy Omar Diop Omar Diop doomu Baye Mbaye Diop ak yaa Fatim Loum mu war a jàng suratul baqara inna allaha la